Assane Samb maa ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax di leen nuyu. voilà Assane Samb nga nekk directeur de publication bu quotidien Rewmi laaj bu njëkk mooy ñu wax ci campagne anticipée bi nga xam ni am na ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre daanaka fi ñu toll yu bëri ñu ngi ci biir Sénégal wala ñu ngi ci gox yeeg gox goxaat yi euh, ban analyse ngay def ci loolu alors que présidentielle bi des na peut-être un an wala quelques mois. parce que temps campagne dafa gàtt mottali rek la man kon li mel ni doon da nga koy commencé avant dugg ci mel ni moom politicien bu nekk da ko war a def fu mu toll li ñor sénégalais yi nga nekk ci li lay intéressé nga nekk ci seen soxla di sa soxla seen naxaar di sa naxaar seen bànneex di sa bànneex loolu ba nga teelee comprendre nga dugg ci nii amaana di nga am chance ñuy voteel la ñëpp gisoon nañ exemple bi Macky Sall en 2012 ñu mu séenee woon Sénégal ñëpp jàpp nañ ni effectivement opposition salon amul njëriñ ñëpp jàpp nañ ni opposition ay communité de presse amul njariñ wala boog njariñ li bariwul li ci ëpp solo mooy dem dajeeg Sénégal yi wax ak ñoom saafonteeg ñoom xam seen i problème xam seen i préoccupation xool noo ciy trouver ay solution je pense que ñoom ñëpp comprendre nañ ko boo xaaree ba élection ñëw campagne ñëw moom <laughs> du jarat ci dara alors ñu préparé di teel dugg ci terrain bi pour gën a xamante ak Sénégal yi gën leen wax jaay seen bopp seen image gën leen jaay seen projet kon daal hmm, jàpp nga ni daal loolu c'est tout à fait normal. ah oui non seulement normal mais c'est nécessaire boo ko fàttee da ngay daanu euh, boo xaaree ba jour campagne heure campagne moom a fa def campagne parce que day xat hmm. te boobaa ku nekk day jóg hmm. te xamante fa du yomb ndax pétixoo bi day métti donc fi mu ne nii ci calme bi ci nga mën a jóg dem dem ci nit ñi def gox goxaan yi te teg say cellule samp waxaateeg waxanteeg nit ñi sansanteeg ñoom ñu gis la naw la ah euh, voilà nga sàmmte ñoom kóllëre ba ëllëg si biir ñu mën la boteel loolu dafa am solo lool ci li nga xamante ni mooy comportement bi nga xam ne homme politique bi da ko war a am tout le temps ñu nañ population yi mënoo nekk li leader politique par ragal population yi am na si euh, wala nga xaw leen mel ni ku leen di seexlu waxin la daal. Hmm. waaw jaxasoo ñoom seen biir waaw boo koy def rek euh, nit ñi ñaare tamit dañ lay daw. ñu gis ni tamit fiñ ñu toll nii Assane Samb dënn yi jóg na tension sociale am na te li ko waral mooy politique bi ban jàngat nga def ci tension sociale boobu rawatina ci réseaux sociaux yi bi xeexante bi waxante luy bon yi euh, doy na waar ban jàngat nga si am. waaw jàngat bi nag mooy dañoo perte benn benn lu am solo ci ñu amoon ko mooy sutura euh, muy li nga xamante ni mooy teggin. nga xam dañu ko jàngaloon euh, solal ñu ko defoon ko ci ñun mooy nit day am sutura nit day am teggin euh, xam sa bopp xam li xam fi nga war a yem li nga war a wax ak loo warta wax xam sa kilifa yooyu may wax ni yëpp dama koy lim pour wan rek ni ñu ko ñàkkee yooyu yëpp dañ ko ñàkk euh, lu tax ñu ñàkk ko nag bon xëy na sociologue bi dee ñu ko gën a mën a expliquer mais société bu bees bii ñu nekk dafa nekk société réseaux sociaux société boo xam ni day làqatu ci clavier am wax lu ko neex saaga ku ko neex saaga ku papa ku baayam ñi saaga donc yooyu moom moo fi ne euh, mu nekk tendance bu gëles parce que dañ doon xëccoo ku ëpp xam-xam ak benn idéologie nga bokk ndax yow socialiste nga wala yow libéral nga yow démocrate nga wala yow communiste nga ñii seet yow sa sa diine li nga gën a gëm say valeur euh, yooyu lañ daan seet mais léegi nag dañuy seet ku gën a ñàkk teggin ku gën a mën a euh, xaawi worma ku gën a euh, am fit waaw loolu la ñuy tuddee fit quoi ku gën a ñàkk teggin ku gën a am fit yooyu lañuy seet bu ko defee nit ñi daal di lay naw topp la loolu nag day tax ñu bari di góor góorgóorlu ci côté boobu nga xam ne gënul ci suñu société gënul ci suñu avenir euh, pays loolu yooyu moom la ñuy jéem a cultiver te loolu bokkul ci li nga xam mooy sutura wala teggin. waaw yooyu nag moo tax nit ñi di defee politique neneen léegi débat yëpp ay xuloo la ak ay gaaruwaale dàggasante ak euh, tumalante ak wanante ay ay ay ay waaw Euh, voilà beneen euh, mbir gis nga Mollah Morgan mooy ki nekk ci réseaux sociaux yi xaw ma influenceur lañ ko mën a wooye xaw ma nuñ ko mën a wooye en tout cas mu doon xeexal Sonko ci réseaux sociaux yi di yàq nguur gi lu mel ni xeme di leen attaqué euh, ñu euh, gis nag démb dafa changé complètement veste euh, daal di ne di ko am attaqué Sonko parce que nee na li ko waral dañ ko wan ay photo ay vidéo ay ojo yoo xam ne vraiment dafa am déception ci leaderu Pastef Pastef bi ban jàngat ngay def ci sortie boobu ci jamono ji. non li ma ci intéressé du lu mu wax ci Sonko wala lu mu wax ci keneen. Mhm. man li ma intéressé mooy man jàpp ma Mollah Morgun comme koo xam source boo xam dafa ma war a jox ay information mhm. man su ma wut information du ma ko ci Mollah Morgun wala keneen ku man di doon ku mel ni moom damay dem ci benn organe de presse bu bu crédible ay journaliste nekk fa mu nekk seen liggéey ñu tàggat leen ci loolu ñu mais ku mel noonu boo ko dem ci moom mu la jox information bu mu la bett bu la waxee ñuul la bu subaa mu wax la weex na bu mu la bett parce que moom du professionnel loolu du liggéeyam te kenn xamul lu tax mu dugg ci te kenn xamul fu mu jógee ba dugg ci. Mm-hmm. loolu ku mel noonu boo koy diglu yaa tooñ sa bopp. loo dégg tey rek mën nga dégg bu subaa lu lu raw loolu wala safaanu la mu waxoon démb mu waxaat loolu parce que moom dara safu ko ci. moom yorul organe du du professionnel. Mhm. kenn xamul mooy kan kenn xamul fu mu jógee. muy joxe information kenn xamul ay source am est-ce que fiable na ou pas nit ñi seen yoon nekk si ku mu neex nga wax la neex wax kay yomb la donc man ñooñu bu ma dee dig wut information du ma dem ci ñooñu d'ailleurs moo laa moom sax ma xamee léegi est-ce que mën na deux semaines man ñooñu doo leen diglu parce que intéressé wu ma ci li intéressé wu ma ci li ñuy def en tant que sénégalais nag respecté naa leen que man respecté naa sénégalais mais da bu may wuti information nag dama ci ay moolaak ay ay ay ay Mhm. mais euh, lan moo expliqué lan mooy expliquer euh, Assane le fait que léegi ñu ngay wax parce que Mollah comme xam nañ du taskatu xabaar du dara kenn xamul lu ko animé ba muy génn def live mais ñu gis ni façon yooyu léegi ñoom la sénégalais yi di gën a déglu ci réseau sociaux yi bañ woowee leen ay influenceurs au lieu que ñuy déglu sax euh, taskatu xabaar yi nga xam ñu ngi def seen liggéey professionnellement lan mooy expliquer tendance boobu dem di seetaan ay Mollah Morgan ay Ousmane Ba ay Tunkara Maty Fall voilà lu koy expliquer. waaw parce que dañuy wax nit ñi lu leen neex xam nga nit boo bëggee jubóo ak moom mu saf la euh, da koy wax li ko neex xam nañ ni loolu moo neex Sénégal yi moo tax ñu leen di wax lu leen neex li leen neex mooy lan fekk ku ñëw kenn ñu koo xam ne sa papa ñu mën ko saa saaga fekk lu kenn ñu mën wax nga wax fekk ñu nga ñu mu nekk seen sutura nga xaawi seen sutura wax ci ñoom seen ni ni lii kat seen bi privé la lii la demee ak nii lii la ñuy def lii la ñuy nëbb xaaral ma wax leen li ñuy nëbb loolu loolu nit ñu bëgg xam nit léegi nit ñi fi ñu toll nii teggin amatul sutura amatul leneen amatul wax naa ko sax léegi nag comme ñoom looloo tax bu ñuy wax si yi wax te xamuñu ba xam dëgg la ou pas ñi leen di diglu xamuñu ba xam dëgg la de à partir de ce moment là ñooñu dañuy dem di topp yi dañuy dem topp ñooñu di leen diglu di leen bàyyi xel di reetaan nga gis ñuy saaga ndey dañuy saaga de lu ñu wax nag boole ci saaga parce que saaga yi mooy safal mbir yi mooy comme ñoom Assane Diouf moo indi système boobu nga gis ne Assane Diouf euh, amoon popularité loolu du ci ñoom de ci ñun la ñooñu ñuy wax noonu si ñun liñ jógee suñu benn côté la ñu wane suñu côté noir suñu côté obscur moom la ñu wane noonu moom la ñuy incarné noonu bu ko kenn suivre woon du ñu siiw donc euh, demande la demande boobu moom la ñuy satisfaire noonu moo tax ñu am gëdd bi ñu am voilà beneen laaj euh, assan Samb di euh, lu soxal candidature bu xalifa Sall euh, moom fi ñu toll nii dafa nar a samp ndëndam te xamuñ ba xam mën na bokk wala mënul bokk est-ce que casier dina ko ko permettre gis nañ tamit docteur Babacar Diop maire bu Thiès moom tamit ne candidat la ban jàngat nga am si candidature yu bees yooyu. ah non boo jëlee candidat ñi nga tudd ñëpp candidat yu yu valable la mm. Khalifa Sall kenn gënu kaa mën a nekk président Sénégal. ndax ci dal ci républicain ci yaru ci fonk réewam ci bëgg réewam ci sérieux ñu xamal ko lépp lu baax léegi nag candidat Dakar la woon évidement Dakar lañ ko gën a xamee mooy basam jàpp na ni benn faiblesse am mooy ñu jëm ko xam ci yu sore yi jéem def tournée effectivement noonu rek la mën a def mbur Sénégal yi gën ko xam fu Sénégal yi mën di nekk ci àddina bi ak fii ci biir réew mi gën ko mën a miin mu jaay image am jaay projet société am nit ñi mën ci adhéré yaakaar naa liggéey boobu lu am solo la muy kër Diop également nga xam ni enseignant la te aussi ñëpp xam ko ci dugg ci ni muy waxee ak ni muy doxale moom aussi yaakaar la ci waa Thiès mais yaakaar la aussi ci Sénégal ñu dañu war a jóg parce que terrain bi nag dañ ko bàyyi lu yàgg waa Pastef ak waa APR. Mm-hmm. ñu séddoo ko carrément euh, loolu erreur la il faut que gars yi euh, jóg dégg nga. xëccu euh, bokk euh, ci xeex bi jéem a am tamit wàll ci mbir mi parce que mbir mi du Sonko rek ak euh, ak Macky Sall d'ailleurs fàttu nañu loolu daal boo waxee lu neex Sonko tey waa Macky mer boo waxee lu neex Macky waa Sonko yi mer mel ni ñoo moom ñu dem sax ba yaakaar ni ñoo moom nit ñi dañoo mujj deew donc il faut gars yi jóg wane seen bopp ñeneen ñi cadre yi intellectuel yi fi ne dugg ci terrain bi joxe un un projet de société alternatif ba nga xam ne Sénégal yi dañ ci mën a gis seen bopp loolu daal lu am solo la waaye li ñu gis nii diggante APR ak Pastef daal euh, sampul kër parce que euh, discours bi ñagas na lool euh, waxin bi ak ñàkk teggin bi ëpp na il faut que ku mel ni Khalifa ku mel ni Babacar Diop ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñoom Abdou mbay ñoom ñëpp ñu jóg gembu dugg ci terrain bi te bañ a seexlu population yi. Euh, dugg ci seen biir lu leen ñor lu ñor population yi ñu ne ca waaw lu bu dee tiis ñu bokk ko bu dee ñu bokk ko loolu daal moom laay ñaax mu leen di ñaax moom laay ñaan aussi ñu koy def bañ a bañ a bàyyi bi rek ak ay ay statisticiens ci APR yoo xam ne euh, liñ ñu andil nii xamuñu ko. voilà dernière question Assane Samb di euh, stabilité réew mi maanaam réew mi bañ a tàkk jàmm continuer di fi am euh, ban rôle la taskatu xabaar yi war a jouer ban rôle la média yi war a jouer pour réew mi bañ a sombrer malgré élection présidentielle bu 2024 ah rôle boobu rôle bu mag a mag la ndax journaliste bu ñu nee journaliste liberté d'information la ñu wax mais liberté dafa am ak benn mot bu am solo muy responsabilité journaliste dafa war a responsable responsable xabaar yi ngay joxe nga jàpp ni mën na influencer ay nit nga jàpp ni mën na orienter ay nga jàpp ni mën na pousse nit def lu mu lenn lenn yi nga ni ah lii de du ma ko wax lii jomm naa ko lii ruus naa ko lii réew yi ma bokk nii de duma ko def lu may wax ma teg ci dëgg eh, teg ci yoon doo wut lu naqari ma demba doo neex ma sàmba à partir de ce moment nga nekk journaliste mais li may gis nii mooy affaire journaliste léegi dootuñu nëbb sax ni dañoo bokk sa ay camp yow da ngay wax ci Sonko wala wax si Macky Sall ay journaliste si boppam di la woo naan waroon wax loolu lii nga waroon wax naan naan ba pare naan éthique déontologie ñoom si boppam di wax éthique déontologie mel ni ñoom. Mhm. éthique déontologie ñoom ko moom maanaam ñoom ñoo ko créé quoi ñoom ñoo ko moom ku leen neex lañ koy jox. alors y a boo xam ne mu ngi commencé di am ci réew mi. mooy journaliste yu far journaliste bu far nag moytu ko jeng baaxul ci lenn journaliste bu far dootul journaliste pour man sax man dootuma la woowee journaliste dootuma la suivre yàq influenceurs yi laa yemale. Mhm. donc mais journaliste yi resté ci seen mission fondamentale muy informer euh, te xam ni seen boussole mooy intérêt supérieur des sénégalais bu ñu ko defee rek di leen continuer di leen naw te leen continuer également du jouer rôle bu am solo ci stabilité réew mi parce que. ñoom kat dañ ci am wàll woo bu bu yaatu wuñu war a war a bay waaw waaw. voilà kon Assane Samb maa ngi lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité. merci beaucoup ñu lay sant leen gërëm. voilà may fàttali ni yow yaay directeur de publication bu quotidien Rewmi. merci quotidien Rewmi. merci.